lu fay anti guérisseuse soxna na fi fàllu fal euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alquran euh, ndox suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci au miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fal yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fal ma nga ci jokkoo ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83. ami internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Sénégal euh, maa ngi toog ak koo xamante ni bu ngeen ko du ngeen laaj lan moo tax ñu toog parce que ku ne làmb euh, te tuddoo yaaram day nekk nee naa la làmb jot du safe wala peut-être ci làmb euh, si njaaram ñu ngi la maa ngi bu baax <laughs> toujours rek ba lu ma leen gis làmb démb ji nga xamante ni moo amoon arène nationale làmb ji amoon enjeu lool eh, ñu gis ñaari mbër yëpp ku nekk daal di ñëw ànd ak ñi nga war a àndal cumbukaayu bal cumbukaay bi nga xamante ni moo di ak promesse bi nga xamante ni ñoom ñaar yëpp ku ci nekk joxoon na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy say fan. ñu ñëw ba ci biir géew bi ñu gis ñaari mbër yëpp ku ne nekk nañ ci tekkaaral Gris Bordeaux xeex ak li nga xamante ni moo di Balla Gaye combat bi doon combat bu métti mais yàlla suñu borom may ki nga xamante ni moo di Balla Gaye euh, li nga xamante ni moo di victoire yow boo doon analyser làmb ji comme làmb ji jeex na euh, tey jii euh, naka nga gisoon làmb ji xam nga làmb moom wax dëgg yàlla làmb la tudd mm-hmm. te bu ñu bëree ba pare kenn ku nekk danaan lii waroon na am ak lee waroon am kii waroon na def lee kay lee la waroon def mm-hmm. mais contrat la woon mm-hmm. amoon seen diggante ñoom ñaar. Mhm. remplir nañ ko. Mhm. ndax li tax ñu remplir ko mooy bëri nañ kenn ki daan na kenn. Mhm. loolu moo nekkoon l'essentiel bu combat bi loolu moo nekkoon enjeu bu combat bi. kon comme Balla Gaye yàlla may na ko ndam. dañ koy ñaanal yàlla na ko ji Gris Bordeaux mi ñàkk. dañ koy ñaanal ndam bu amaatee yàlla na am. Euh, mais yow euh, yàgg nga ci làmb mais démb bi nga gisee ci mbokaayu Balla ak ki nga xamante ni moo di ci mbokaayu kii euh, sa xel ci lan la rek. waaw gis nga làmb comme lu may faral di wax rek lii jàll na man lu jàll ndax boo na diw mhm. ku nekk yaay ak sa butéelu diw boo war a diw waaw <laughs> loolu dëgg la bu kenn wax ci kenn mhm. na ku nekk wax ci ki nga nekkal mhm. wala na ku nekk di wax ci ki mu nekk na ku nekk di wax ci li mu nekk loolu moo solo ci àdduna man su ma la ma ne la nañu ubbi làmb def ko grand compétitif grand compétitif waaw loolu mooy tax làmb amaat enjeu loolu mooy tax sponsor amaat loolu mooy tax làmb amaat victime mais grand contre petit boobu su la jegee maanaam ñi nga xamante ni ñoo ñoo di ndaw ñi nga xamante ni yegguñ ci VIP yi VIP yi may chance xale yi. loolu laa ne mooy grand contre petit. Mhm. ndax gis nga fu mu nii. Mhm. mënoo am cent trente kilos am kooku physique. mënta ne mënul nekk. bu mhm. ñu naxante tamit xam-xam mais mun nañ am xam-xam. mun nañ am mbooloo bi. mun nañ am bëgg-bëgg bi ak yëg-yëg. Euh, mais yoonu làmb euh, Gris Bordeaux ubbeeku na yoonu làmb ki nga xamante ni moo di Balla Gaye gën na ubbeeku est-ce que tamit jotul euh, Gris jox ñi nga xamante ni ñooy chance ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñooy nekk di yéeg di ramper ndànk-ndànk parce que aussi tamit quoi qu'on puisse dire Gris Bordeaux actuellement ni ku def 22 ans ou bien 25 ans de carrière yaakaar naa fi mu toll nii sa làmb gi bëgg a jeex. est-ce que promoteur bi tëdd gi amaat na. ah yoon war na am. ndax ndax Gris Bordeaux Gris boole ki nga xamante ni moo di Ama Baldé loolu combat la Gris Bordeaux nga boole ko ki nga xamante ni moo di Sa Thiès combat la Gris Bordeaux ak ki nga xamante ni euh, moo di euh, nu mu tudd sax ay Yékini Junior yooyu gars yooyu yëpp ay combat taxaw la Gris Bordeaux pourquoi pas nga xamante ni moo di Franc xam nga moom laa la wax ma ne est-ce que promoteur yi am na xam nga dafa am benn surprise bu amoon mooy daw ñu ba léegi mhm. est-ce que kooku dina defaat loolu dina jëlaat surprise jël ay millions. Mhm. teg ko ci dara. Mhm. pour pour di xaar. Mhm. comprendre nga. comprendre est ce que loolu dina mën a nekkaat. Ah, kenn moo ko defoon. léegi kooku ko defoon ban volonté la amoon ak ban yëg-yëg la amoon pour def loolu. est ce que loolu dina amaat. est ce que tamit baaxul luuti ñu wàcce cachet yi. est ce que comprendre nga. te xam ni àdduna yàlla day def tey lii dox trop. bu subaa mu def bu dox. gis nga bi gars yi yor nii. Mhm. war ko bëree làmb. Mhm. yàlla mooy maye. Mhm. yàlla mooy jël lu ko neex mu def lu mu ko neexee. mais poids bi gars yi di jël nii ko bëree. bu dee ñoom seen biir la. day yàq la il ñu jël benn xale. benn mag ñu boole. xale bi def cuuf cuuf cuuf mag yi bañ. làmb ji neex bu ko defee gars yi amateurs yi mën a am fraîcheur u làmb. mais ñaari poids yu war a bëri dañuy wutum bëri ba kenn ki ndax moromam daan ko. mais est ce que war a am ci làmb ak bi amoon bu njëkk. Mhm. bu mhm. da ngay xam ne ku ñëwoon na. la Balla bu ñëwee. Mhm. bu jàppee du bàyyi. du bàyyi tension am na lu changé. adduna bi noonu la yàlla bindee. mais li am solo def nañ remplir mm-hmm. nañ mais est ce que tamit li nga wax aussi tamit da ciy joué maanaam bu fekkee ni contrat yi mbër yi dañoo aj contrat yi. Ah, ndax ku ne mbër wax entraînement yi mu war a ku ne mbër wax lekk yi ku ne mbër wax kër sëriñ yi nga xamante ni foofu la war a dem aussi tamit wàññi cachet bi ci bëri loo xamante ni après yow doo ci sa bopp est que teewul loolu moo tax mbër yi di aj cachet. gis nga. bu baax. Mm-hmm. lekk bu baax. Mm-hmm. wàññi li ñuy jox sëriñ. ah mais jëfandikoo buñ toogee buñ toogee yaram buñ toogee ngarima nañu entraîné bu baax di lekk bu baax wàññi ñuy jox sëriñ kon maanaam boobu li may li nit ñi di wax ne làmb euh, sëriñ 5 pour cent wala 10 pour cent la loolu da koy confirmé yow. waaw dañuy entraîné bu baax. Mhm. lekk bu baax te wàññi li ñuy jox sëriñ. gis nga 200 butéel yooyu booy di uti noonu booy yooyu ñu ngay yónni ñuy dem ak a ñëw <laughs> yaa ngi koy naan sax léeg-léeg affaire bi di jàll sa biir. Mhm. sax gis ko. poudre boobu ngay naan di jàllale ñaan la góobal ñetti góob ak buusul ak defal yi yaa ngi koy def mais risque la. risque la dina indi ballonnement dina indi mal mhm. boo xamante ni yoo xam ne moo koy lijjanti. Mhm. parce que ay bant ay bant lañ lay jox mhm. naan bant yooyu est da ngay am temps wu entraînement da ngay am hygiène de vie. Mhm. da ngay am temps wu récupération. Mhm. léegi boo amee temps boobu yëpp tey. Mhm. boo defee day neex. Ah, moom Balla moom Balla mu wax boppam ci euh, ci journal yi nga xamante ni dinañ ko tëj ba. moo ni moom dafa bëggoon ñi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb ñu daal ko respecté bi mu waxee lool nag am na ñu ni fi mu toll nii combat ak ki nga xamante ni ah, moo di ah, Modou ginnaaw ñi nga wax moom ak Ama Baldé moom combat ak Balla Gaye toll nii Sénégal yi bëgg nañ ko parce que démb passé bi yëpp ñoom lu ñu doon wax maanaam revanche ki nga xamante ni moo di Balla ak ki nga xamante ni moo di loolu mi ngi au diapason wala nekkul au diapason wax ci moom dara te wax te ah, remplir contrat bi ñu yor ak Ama mais après ba démb ba làmb ji jàllee. Mhm. blessure Modou démb la may soog a su ma la waxee dëgg. lu tax ma lay doog a métti. c'est que Modou bu bëree woon ak Ama daaw. Mhm. wala ñu bëri ci début saison bi. Mhm. moom Balla Gaye dañu la bëriwaat. loolu tey dinaa kenn mu ci dara. non c'est normal ñoo war a bëriwaat. ndax Balla lu muy am ci àdduna di bëri Modou dafay neex. kon daal yow démb yëg nga ni yëg nga ni Modou Lo da ko abal. non mais Modou du war a bu fekkoon ne gaañuwul woon ba combat bu am. Mhm. man su su may wax. Mhm. waxuma pour far rek. Mhm. damay wax pour luy dox. pour mbir mi di dox. ndax mbir mi dafa doxatul. wallaay lazim foofu laay wax. Modou bu bëriwaat ak Modou ah ah, ah Balla Gaye. bëriwaat ak Eumeu Sène. ah naxaru Balla Gaye moo ciy daj. que comprendre nga na waaw mais Balla Gaye bu doon man en personne. damay jël sama responsabilité bàyyi fi Eumeu Sène bëri Boy Niang est-ce que bu doon man maa ko maa am kàddu damay pour pour affaire yi doxaat neexaat nekkaat en damay bàyyi Eumeu Sène ñu toog fi ñu toog ma dem bëri la ba Boy Niang mais loolu est-ce ci moom Balla boobu da lay jël risque yaa gën la. waaw mu ci li def dimanche risque la. waaw mais ak ki nga non ñaari ñaari mbër yu te kii xale la xale la boo xamante ni bu ndaw nekk ci diggu toll ci ay ndëndam actuellement nii papaam ngeen ne combat moog Balla Gaye daf koo yàkkam ndax bir na ko ni mu bëreeg Balla Gaye ko daal Balla jógee ci defet ñëw am moo di Gris Bordeaux dem jëli booy boo xamante ni ñu ngi ci fraîcheur aussi tamit loolu risque gën koo rëy. ça va ñu poussé ba sori. Eh. damay wax ci lu ma xam. Eh. man su ma la waxee dëgg. Eh. musuma dox nii ci mbedd gis booy ñaar. Mm-hmm. benn yoon laa koy mos a gis te làmb laa taxaw mu romb moom. Mm-hmm. su ma waxee ci moom dara damaa naan ko. Mm-hmm. Balla Gaye li muy nekk Balla Gaye Balla Gaye benn bés la ñu mos a gisee wala ñaari bés benn bi këram laa ñëw dëgg benn bi ñu ñëw kër moo di dëgg. su ma waxee ci ñoom damay naaf. mais ci li làmb li doxee. logique làmb ngay wax logique làmb. su ma ciy wax. kese ci laay wax mhm. mais waxuma Kanta li papa yi booy ñaanee booy ñaan kii mën na ko daan wala kii mën na ko daan mhm. pour làmb dox mhm. ñun ñi nga xamante ni ñoom moom làmb di ko seetaan di ko dund comprendre nga nekk ci biir làmb pour affaire ak ouverture ouverture am sponsor ñëwaat il faut ñu boole booy ñaan ak Kanta sponsor ñu ñëwaat mais waxuma pour Kanta waxuma pour Kanta Balla Gaye bëri ak Boy Niang. Mhm. wala mu bëri ak ci jàmmam. Mhm. Eumeu Sène ci jàmmam. Mhm. Balla moom laa gëm moom laa moom laa xam. moom laa nekkal ndax gis nañ ne nutrition. man lu yàgg bu ma sol sama dàll. ma ne maa ngi dem seeti Balla Gaye maa maa ngi dem seeti keneen. xalaatuma loolu mhm. ndax gis nga yàlla noppi na démb tey soog a mhm. su ma la rombee nga ne yaaram ñàkkul dara mhm. ginnaaw ba yàlla wéyee moodu moom est bu ndax mu ma xool ci lu ma nekk mu ngi xool ci lu mu war a def ma am am mu nekk ci loolu sant yàlla weesuwul loolu weesuwul loolu àdduna du poos alalu àdduna bët la tey su ma waroon na soo yëre bi mhm. kii da nga ne kii na lool ataa mhm. mbër la woon ne kii mooy du xam ko mhm. yàlla def na tax booy def ñaanal ko ko ñaanal lu mu dugg ci génn mooy faral di mbër leen mais tamit ñuy bàyyi xel xarit toog Balla Gaye lu tax Balla Gaye am bés ma dëkk feneen ñëw dugg ci biir mhm. mhm. wane sama bopp fu nekk ci làmb ji mhm. day yàq làmb damay wax sama xalaat amul pour bàyyi bëri laay lañ bëri am nañ ay rakk yu bëri am ay jarbaat yu bëri am nañ ay mag yu bëri comprendre bu baax li neex ba utal sa bopp ay noon ndax nit léegi naa a baax. gën a taaral làmb. gën a defar na ku nekk di toog fi war a toog na ku nekk di ànd ak fi mu war a àndal. dañu xam ne Samba Mbaye na suñu borom. ko yàlla yelloo ñu war koy def. ku bëre ba bàyyi bëre bu fekkee yàlla ñoo dara àndal ak suñu borom. da toog fi nga toog ànd ak ñu ne war a àndal. te xam ne yàlla yéen a ngi mu xotti def dara. dëgg la. parce que mhm. waaye bu fekkee ne mbër tax na bu yor bu bañ ko rek dafa dem mhm. wallaay la da ngay yàq làmb rek ndax am nga ay mbër yoo xamante ni tey boo leen tegoon loxo. ñu nekk dara. mais est-ce jotul yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci làmb ji euh, ngeen xool ay mécanismes yi ngeen war a def ba làmb ji teguwaat ci yoon ba sponsor yi mën a ñëwaat parce que bu dee promoteurs yi dama am sama benn rak muy ci làmb damay waxtaan moom ci loolu. Mhm. ah. Mhm. maa ngi mhm. koy wax. booy tëgg. bul tëgg sa ay tëggal ay xale yoo xam ne yàlla may na leen mbooloo yàlla may na leen plan ñu bëri ndax boo tëggee mag dañ si investir xaalis bu bëri ba pare benn ñaar làmb ja fraîcheur bi ñu war a am du ndax xale yi tamit dañ leen war a jukki pour ñu am dara ci làmb permanence donc ak papa mi nekk moom tout le temps ndax loolu tamit man loolu laa gën euh, léegi lan mooy doon li nga xamante ni loolu ngay tàggatoo Sénégal yi ak euh, fan fan ngeen toll parce que aussi tamit sa biir wax ci mu toll nii boo soñoon mën loo bëre combat pour digganteem ak Balla Gaye daal di leer su ma la waxee dëgg <laughs> eh. wallaay rajo xëy na nit mën na ma dégg ci li may wax ak yow ni tey mhm. ce mot de tous les voyages moom. pour ñu régulariser combat bi. moom nag armée ni combat bi bu yàlla def nii moo ñëw. pour ñu régulariser combat bi gis nga sama rakk man du wax rek lu neex a àndal. kon man neewuma kenn. dëgg la. est-ce que mhm. mais damay wax ma ne bu ñu jàkkamti ñoom. yàlla mooy bind blessure ci nit mooy bind wér ci nit mooy bind mbirum jàngoro ci nit Modou dafa gaañu woon na ñëw mooy combat bi ñu gis nañ ko ko dem dégradé yi ñu doon bu ñu yàkkamte bu ñu dem fenn te combat boobu moo mën a nekk combat moo tax làmb bi moo dundalaat làmb dundalaat làmb làmb dundul mais ca dundin ba. moo ci gën kenn ki da cee perte. bu doon commerce ba. la mu jaay dafa daan amul amul bénéfice. kenn moo ci gagné. te bénéfice bi du cent pour mais gagné na ci perte. ndax def na ci làmb ji loo xamante ni sax amaana làmb ji bëgg ko woon. loolu pour mu amoon ndam bi mu am nii. Mhm. mais nag fonkat ak entraîneur mhm. ànd ak ñoom. Mhm. ànd ak ñoom war a ànd la. nga xam ni yàlla moom. ala kulli borom xol yu rafet yi lay àndal. gis nga boo buggee yor sirif bu weex mhm. tey jege borom diwtiir mhm. seen biir dina takk dara bu làmb di yàq nit mhm. ba nga bàyyi ñi nga doon àndal nga doon àndal démb bu làmb di baax nit nga am xarit yu am ñi nga bàyyi ñi nga doon àndal démb nga wax ñi mu doon àndal man nag dafa am ku muy àndal koo xamante ni su ma la su ma kilifa la su ma lépp la suy ànd kooku su ma gisee kooku ci wetam sax damay am ñeemantal ci moom ndax kooku dafa ma defal lu bëree bëree bëri ci àdduna est-ce que comprendre nga mu métti sama loxo damm gisuma kenn muy Xaadim Njaay mu yor ma këram pendant trois quatre ans yi ma damm yëpp këram laa ko nekk jabaram ummi du ma baax lu mu fa ci man su ma gisee mu féete fenn rek dama koy faral waaw loo xamante ni ci moom ko fàtte ba ba may di espoir yi nga xamante ni yaakaar na ni suba wala gannaaw suba ñoom ñooy téye flambeau boobu làmb espoir yi téye flambeau làmb waaw non man loolu hésité wu ma sax. waaw mais est-ce que rajo jë est-ce que rajo jëmale sa kanam. barke alxuraanu karim. franc mu mënul cee làmb. non man de maanaam sax moom bu bëree di daanu dama koy bàyyi. loolu gën a gaaw. waaw loolu day billaay wallaay franc muy bëri di daanu. man dama koy bàyyi man. ndax làmb am na daan am na mas am na lépp. ñu bëri di daanu. franc ñu bëri yëpp moo leen mën. daal yaakaar nga ni espoiru làmb moom ci loxoom lay. Franc moo yor làmb nii su bu fekkee ne mu ngi am ay combat war a bëri. tey daan ñëpp. mais est-ce que tamit est-ce que tamit est-ce que gars yi ragaluñ ko parce que Franc <laughs> daf ni ñàpp de macha allah. dëgg bu tàng. Euh. boo cay jël suuf. da ngay yor sa loxo ndànk rek. <laughs> moo ko defal rek mu lakk la. moo ko defal lakk rek. <laughs> kàddu gu ma ji lan. <laughs> sant waa Sénégal rek. Uh-huh. sant waa Sénégal bu baax. Uh-huh. di félicité suma grand bi ma la wax nii. Uh-huh. ndax wax dëgg yàlla man nag. mënu maa wax ci camp bi lu sori. waaw d'accord naa de waaw xam naa kay. day feeñ sax see bët. mais xaadim. Ah, félicitation rek laa koy wax moom en personne. Khadim Ndiaye waaw <laughs> moom en personne félicitation daal laa koy yàlla na ko ndam lu jub tamit ak lu muy ànd ak waa yàlla na yàlla barke. ndax xam naa daal man xam naa yàlla xam naa xam naa fu ma aw ak moom. dëgg ko fàtte sama àdduna bi. dëgg jeex na loolu laa yéen a ko déggandoo nee na moom fi mu toll nii li mu bëgg rek ci àddunaam mooy Modou ñu gisuwaat ak jàmm bañ régulariser combat bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante mooy Ama Baldé. Uh-huh. Uh, nee na nag na gars yi teere ndax incha allah bi boobu combat dina doon combat boo xam ne taaraan yi nga xamante ni moo di làmb c'était Sénégal Buzz 221 Abdou Sari Sey ak El Hadj sama caméraman bi nga xamante ni moom mi ngi caméra di yee si ñoom rek <laughs> aco bi ngi noonu yàlla jàmm yàgg ci biir réew merci beaucoup grand Ndufaay antiguérisseuse soxna na fi fàllu fàll di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alxuraan ndox euh, suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fàll euh, yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fàll maa nga euh, nga jokk